Okay, alhamdulillah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kon ñu ngi war a jël tey ay ñaar fukk ak ñett ci suuratu nisa suñu boroom jalla wa ala di waxee ni xurrimat alaykum ummahatukum ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci xéewal yi nga xam ne nii jagleel nañu ko wërsëgal ñu ñu daje ci ab néegam fas yéene jàng ab téeréem yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daan ñaax julit ñi ngiree ñuy mën a fekke lu mel noonu ci ngëneel yu màgg ya nga xam ne aju na ca doonte ne it noonu la doon bégale jullit ñi nga xam ne seen xol day aju ci néegu yàlla ya ci xéewal ya leen di xaar keroog buñ daje ak seen boroom looloo tax ñi fi daje ñi ngi ñaan yàlla na yàlla nangul leen waaye mboolem ñi koy nara dégg it fu ñu mën a nekk ci kaw suuf yàlla na yàlla boole ñu ak ñoom ca loola ñi nga xam ne it ñoo dox suñu diggante ak ñoom na doon ci groupe bu jàkka jeeg site yi ak suñu télévision bii di Islam TV ña nga xam ne ñoo koy taxawee ak ña leen di jàppale ñoom ñëpp it yàlla na yàlla boole leen ci ñuy jottali kàddug borom bi jalla waala tey jii mooy tombeeg 8 mars ci 2023 di tombeeg fukki fan ak juróom benn ci Chaaban ci atum 1444 ci bi suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam gàddaayee ba léegi kon incha allah su dee Cheikh Ousmane pare na mu jëlal ñu suñu bind bu jëkk
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما
barakallahu fikum kon suñu boroom jalla waala mu ne xurrimat alaykum ummahatukum araamal nañ ci yéen ñi nga xam ne seeni yaay lañu wa banaatukum ak ña nga xam ne seeni doom lañu wa axawaatukum ak ña nga xam ne seeni jigéen lañu muy seeni sœur wa ammaatukum ak ña nga xam ne ñooy seeni bàjjen wa xaalaatukum ak ña nga xam ne ñoom ñooy nekk seeni tànta ya bokk ak seen yaay wa banaatul axi ak doom yi jigéen ya seen frère ba jur mi ngi noonu wa banaatul uxtu ak doom yi jigéen ya nga xam ne seen sœur muy seen jigéen moo ko jur wa ummahatukum allati arda'nakum ak jigéen ña nga xam ne ñoo leen nampal wa axawatukum min arradaa ak seen doomi ndey ya ngeen bokk ca nampal ga boole leen wa ummahatu nisaikum ak jigéen ñi nga xam ne ñooy yaayu seeni soxna yi wa rabaibukum allati fi xujurikum ak ña nga xam ne da ngeen leen a yar ñu nekk ci seen biir kër ya min nisaikum allati daxaltum bihinna ñu jóge ci soxna yi nga xam ne dugg ngeen ci ñoom ay bokk ngeen ci ab lal fa in lam takunu daxaltum bihinna bu dee musali na bokk ak soxna yooyee lal nekku leen du dugg ci ñoom fala junaha alaykum su boobaa amu leen benn ngant ci loolu wa halailu abnaikum ak la nga xam ne nii dafa nekkoon di dagan seen doom yu jigéen ya seen seen doom yu góor ya allazina min aslaabikum ya nga xam ne nii dañoo jóge ci seen ndigg yi bopp ya wa an tajma'u bayna al uxtayni ak it ngeen di boole ñaar ñoo xam ni dañoo doon ay sœur illa ma qad salaf lu dul loo xam ne nii dafa romboon inna allaha kaana gafuran rahima sa borom yàlla day mooy musul deñ di nekk di jéggalaate ak di yërëmaate mi ngi noonu mbokk suñu boroom jalla wa ala gis nañu ne moom mooy boroom jaam yi di dogal ci ñoom lu ko neex bokk na ci li mu dogal bëgg nit ñi jàppalente nit ñi xamante nit ñi booloo looloo tax ci wàllu sëy mu ne boo jógee di wuti jabar mboolem soxna yi sus ci yow yépp aram na nga takk leen demal ca ña sori su ko defee ñooñu sori it même chose ñu ñëw ci yéen loolu day tax ba famille yu duggante nit ñi xamante moo tax mu ne wa huwa alladi xalaqa min almaai bashara fa jaala minhu mu jaxalu nasaban wa sihra fa jaalu nasaban wa sihra mu def ko mu nekk ak mbokko def ko mu nekk ak ak gorowo ca waa kër caama nga ne heure bu kenn jógee foofe dem ca kër njaay takk fa soxna indi këram ay doom juddoo ca doom yooyu nekk sëti waa kër njaay nekk sëti waa kër caam loolee ak jokkoo lay indi suñu borom yàlla kon daa di commencé mi ngi commencé woon suñu darsi bi passé lañ mujje woon mooy képp koo xam ne seen bàyyi mas na koo takk jeex na yow doom amootoo droit di takk soxna soose maadaama sa bàyyi mas na ko takk rek ànd nañoo ànduñu yow mboolem ay doomam xaram nañu takk ci soxna soose ñaareelu façon jigéen ñi mooy lan mooy li suñu borom ne araamal naa ci yéen seen yaay yi te loolu lu dul société boo xam ne xanaa dañoo yëgg ci njaa àll dëgg-dëgg ñooy mën a toléré di sëy ak sa yaay bi la jur allahuma nag biñ demee ba ak liberté am ci doomu aadama yi rawatina occident bi nga xam ne seen frein xel dafa dagg loolee defuñu ko benn problème mooy lu ñuy tuddee ay inceste ay inceste sama mbokk bi samb mi ngi may nettali benn film bu mu gis ñu ñu ñu tourné ko koo xam ne ni maam ji sët bi lay ngorowoon teel ci film bi mais ànd waxuma sax dama mooy sëtam far gis ngeen loolee mbokk da ngay gis ak yàqu jukko la dañuy nettali ci soir ne Omar mas nañ ko indil koo xam ne dañ ne dafa njaaloo ak yaayam dafa forcé yaayam njaaloo ak moom mu ne nañ ko rey te buñ reyee ba pare sax nañ ko taal ngiree mu nekk misaal ci doomu aadama yi te mooy loolu ñu tuddee ay inceste mbokk nañu xam ne ci njaaloo yi gën a bon la njaaloo bal lu ëpp ci borom xam-xam yi dañ ni ki nga xam ne dafa njaaloo ak ka yàlla araamal mu sëy ak moom même bu dee musul sëy dañ koy rey kenn du ko dóor amma ku musul sëy nga njaaloog jàmbur dañ lay dóor mi ngi noonu kon seen yaay araam na ci yéen waaye seen doom yi jigéen it naka noonu seen doom yi jigéen naka noonu te loolu am na ay société yoo xam ne nii ba tey ci àdduna bi loolee ñoom def ñu ko problème waaye mboolem ñu seen xel yàqu yàquwul du ñu nangu loolu gannaaw ba seen sœur kan mooy sa sœur mooy da ngaa bokk ak moom ndey wala nga bokk ak moom baay ñaar yi lu ci am araam na la gannaaw ba sa bàjjen kan mooy bàjjen mooy koo xam ne moog sa papa ñoo bokk benn ndey wala moog sa papa ñoo bokk benn baay suñ bokkee ndey ak baay moom waxu waxi noppi la bokk na ci it seeni tante yi mooy ñi nga xam ne ñoog sa yaay dañoo bokk benn ndey wala ñu bokk benn baay ku mel noonu araam na nga siyeg moom ba faw frère bi nga xam ne yéen a bokk benn ndey wala yéen a bokk benn baay mboolem ay doomam yu jigéen ak seeni doom ba ilaa yawmi diin araam na nga sëy ak ñoom ba faw mu safaanoo ak bàjjen bi ñuy wax ci gannaaw ak tànt bàjjen moom moom ci boppam moo araam nga sëy ak moom tànta moom ci boppam moo araam nga séeg moom waaye dagan na nga séeg seeni doom amma sa frère moom araam na nga séeg ay doomam araam na nga séeg ay sëtam ba ila yawmi din naka noonu sa sœur sa sœur mboole mi ay doomam araam nañ ci yow donte ne loolu nag mooy lënt bi gën a nekk lënt ci lënt yi ndax lu bari ci doomu aadama yi li ñu miin ci Sénégal da ngay gis ñoo xam ne seeni borom kër dañ leen di woowee nijaay ñu bari nag jàpp ne kon jarbaat moom araamul waaye mbokk jarbaat dafa xaram kenn du siyeeg jarbaatam na doon moog yaayam yéen a bokk ndey wala yéen a bokk baay am na histoire bu ñu ma ciy nettali sax ñu ne waaja moom ba ko sëñ bi woowee nu ko damaa dégg yow da ngaa takk sa jarbaat mu ne ko ah waaw waaw mu ne ko mais loolu dafa xaram ci lislaam kooku da nga koy bàyyi mu ne ko ah sëñ bi kooku mënu ma ko bàyyi de mu ne ko boo ko bàyyiwul xanaa kon kon dama da nga ma bàyyi mu ne ah xanaa suñu ma bàyyi la rek waaye man daal kooku mënu ma ko bàyyi mbokk mi ngi noonu loolu moom dañuy gis ne musiba la loolu kenn du ko def jarbaat mahram la sa ku ñu xaram ci yow la gannaaw ba suñu boroom gannaaw juróom ñaar ñooñu mu ñu mu li limmal nga xam ne mooy sa jabaru baay sa yaay sa doom bu jigéen say sœur say bajjan say tante ak sa doomi frère sa doomi sœur mu indi la it ñeneen mooy soxna yi nga xam ne dañ leen a nàmpal soxna yi leen nàmpal loolu am na ay détails yoo xam ne ca darsu fiq ba xam naa lay gën a leere ala kulli xaal nàmpal googee borom xam-xam ñi am nañ ci juyoo naka lay demee am na ci ñoo xam ne dañ ne jigéen fu mu jëlee ab liir nàmpal ko aram na ko aram na ay ay ay doomam am na ñoo xam ni dafa am xadis bi yonente bi alei salaam mu ne la tuharrimu massatun wala massataan la nga xam ne moom mooy ak benn muutu ak ñaari muutu du araamal kon xale bi il faut mu nàmp lu ëpp loolu am na ñoo xam ne dañ ko yóbbu xam sa radaa te juróomi nàmpal mooy fokk soxna si day nàmpal xale bi juróomi nàmpal te mooy jox na ko weenam xale bi nàmp ba bàyyi joxaan na ko weenam xale bi namp ba bàyyi na doon loolu ci benn place la na doon loolu fan yu safaantikoo la waaye bu dee wóor na ne ne kii kat xale bi mas na sex weenam juróomi yoon ku mel noonu la koy doog a xaraam lii mbokk da ngay gis ne borom xam-xam yu bari ci loolu la ñuy la ñuy gën a basé wu te mooy loolu mooy nekk di xaraamal pas benn namp rek donte ne lépp lañ war a moytu namp boobu it la jumhurul ulama wax day fekk mu nekk ci ñaari at yi waaye xale bu passé ñaari at ba fer nampal ga ñu koy nampal du tax mu araamal te moo mbokk mi ngi noonu ki nga xam ne daf fekk ab xale bu góor mu nampal ko du tax ñu ne daf koy xaram mi ngi noonu naam loolu kon mbokk la ñuy wax ci yaay yi nga xam ne dañoo nampal suñu borom yàlla it boole ci soxna si nga xam ne da nga namp ci moom mboolem ay doomam ak ñeneen ñum nampal ñooñu say sœur lañu ni say sœur bopp araame ci yow noonu lañu araama ci yow may axawaatuka min radaa doonte ne it nañu xam ne sunna jàngal nañu ne borom kër bi muy sëyal jamono bi mu lay nampal dañ koy considérer bàyyi ci yow mboolem ay yeneen doom ya nga xam ne yeneen soxnaam ñoo ko jur araam na nga sëy ak ñoom mi nga noonu képp kuy namp ci jigéen borom kër ba muy sëyal jamono joojee baayam lañ koy considéré mboolem ay doomam ñu juddoon avant ñu judd après ñoom ñëpp dañ leen di considéré ne ay frère am lañu wala ay sœuram lañu bokk na it suñu borom yàlla lim ñuy wax mooy seen yaay yi soxna yi seen yaay yi soxna yi mbokk jigéen boo ko xisee ba takk na doon ànd nga ak moom ci lal wala ànd ak moom ci lal yaayam xaram na la ba ila yumi din maadaama may nañ la ko yaayam xaram na la ba ila yumi din mu des nag le contraire le contraire mooy moom yaay ji nga takk bi nga takkee yaay ji avant ngay ànd ak moom ci lal nga gis doom ji doom ji gën laa neex boo santee càmm bu la neexee fase yaay ji dem takki doom ja waaw loolu moom dara niwu ci ci lislaam mooy bu dee musu leen ànd ci lal bis ba ngeen àndee ci lal nag jeex na soxna sa mboole mi doomam aram na la waaye maadaama jitagu leen ànd ci lal dagan na nga takk mboole mi doomam bu dee da nga ko fase loolu mbokk li suñu borom wax mooy ñooñu ngeen yar ci seen kër yi am na ca ñenn ci borom xam-xam yu naan su dee da ngaa takk jigéen di séeg moom mu am beneen doom boo xam ne musul dëkkoo ak moom ci kër gi boo fasee soxna si wala yaayam de bu la neexee dem takk ko indi waaye nag mbokk loolu lu tumuranke la la nga xam ne moom la jumhurul ulama wax te moo gën a dëppoog alquran mooy suñu borom li mu wax ne seen doom yooyu ñee ngeen yar ñu nekk seen kër mooy en général jigéen buy sëy fenn ay doomam yu jigéen lañu fay nekk waaye la la koy won mooy suñu borom mu ne bu dee ne nekku leen fa in lam takunu daxaltum bihinna bu dee musu leen ànd ak ñoom ci sëy yàlla boole wucca wala bu dee nekkuñ ci seen kër yi dafa wax rek bu ngeen àndul ak moom ci sëy loolu muy wane ne bu ngeen àndee ci sëy na doon doomam mi ngi dëkk ak yow wala dëkkul ak yow du ay dama xaraama nañ la ba faw amma bokk na ci it koo xam ne sa doom bu sa doom bu góor da koo takk képp koo xam ne sa doom bu góor takk na ko ànd nañu ci lal ànd ñu ci lal waaye daal la nga xam ne mooy sëy bi am na araam na la ba faw yow bàyyi nga di ko takkati waaye doom boobu mooy ban doom mooy doom boo xam ne yaa ko jur yaa ko jur doonte ne say doomi frère say doom lañu gis ngeen yonent yàlla yanquuba ba muy laaj njabootam nga lu ngeen di jaamu sama gannaaw dañ na ko na'budu ilahaka wa ilaha abaik ibrahim wa ismail wa ishaq daan jaamu sa li sa bàyyi doon jaamu ibrahim ismail ishaq te yanquba ismail juru ko ishaq moo ko yor moo ko jur waaye nag ay frère lañu loolu kon moo tax borom bi ne yi nga xam ne dañoo jógee ci seen liggéey yi doomi frère bokku ca doom ya nga doomoo bokku ca doon te ne ak doomu lislaam da ko xaraamal doomu nàmpalit bokku ca wax naa la sànq ne la ki nga xam ne day nampal jigéen masalan ki nga xam ne nii jigéen bi nampal doom jëkkër bi muy sëyal doomam yi mu am dañu nekk ay maxram ci xale bi waaye nag doom boobee bu dee doom bu góor la bu amoon soxna da ngay gis ne islam aramalul bàyyu nampal bi tekk ko moo tax borom bi ne min aslaabikum loolee mbokk suñu borom daal di cay dolli wa an tajma'u bayna al ukhtayn ñaar ñoo xam ne ñoo bokk benn ndey ci ay jigéen wala ñu bokk benn baay ci ay jigéen araam na góor nga boole leen ci benn sëy soo fasee kenn ki it iddaam day jeex nga doog a takk ki ci des bu kenn ki dee tey moom bu la neexee tey nga takk ki ci des kon sëru soxna moom la ca araam mooy boole waaye araamul nga takk ko waaye boole nga moo araam waaye bu dee wala nga fas ko bu la neexee nga daal di koy takk sunu borom nag mu ne lii day araamal nañ ko ci yéen xanaa lu dul la nga xam ne jiitu woon na loolu da yàlla jéggale na ko ndax aaya bi wàcc am na ñoo xam ne seen jabaru baay am na ñoom moom jaboot am na ñoo xam ne nii am na takk nañ seeni sœur am ak ñoom jaboot am na ñoo xam ne nii ilaaxiri suñu borom nag ne li jiitu woon li lépp moom yàlla subhanahu wa taala jéggale na ko mbokk yi lii ngeen xam ne mooy li ñu wax mahram atte yi tege ci lii mooy yoo xamal ne yow góor wala jigéen ñii ñooy ña nga xam ne la yonent bi alayhi salaam di wax ne jigéen du dagan muy tukki lu dul mu ànd ak maxaram mooy koo xam ne sëy aram na ci moom ba faw doo dem di tukki tukki boo xam ne nii da nga day nekk doxu guddeeg bëccëg nga fay fanaan lu dul da nga war a ànd ak la nga xam ne mooy maxaram ñaareel bi ñii dong ci ay jigéen la góor mën a dem di leen jox loxo ñuy nuyonte ak moom képp koo xam ne nii bokkewuleen nii da ngay gis ni doo dem di jëxanteeg moom la nga xam ne mooy loxo ñaareel bi ñetteel bi it ñii la islam may ngeen di wéet ak ñoom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni góor ak jigéen du ñu wéet ci place boo xam ne mën nañ faa def lu kenn yëgul lu dul cheytaan a ñëw daal di leen di ñetteel loolu kon moo aju ca la nga xamee ne nii mooy aayo yooyee mi ngi noonu ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما بارك الله فيكم سني بارم كون جل وعلا مني والمحصنات من النساء ak ña nga xam ne dañoo nekk ci buumu sëy te jigéen ña illa ma malakat aymanukum lu dul moom na ko seeni ndeyjoor ca jihad ba kitaab allahi alaykum lii de mooy téereb yàlla ci yéen ay farata yàlla ci yéen wa uxilla lakum ma waraa zalikum daganal nañ nag leneen lu dul lii gannaaw lii lépp an tabtahu bi amwalikum ngeen nekk di sakku ci seen alal muxsinin ngeen doon aju ñuy fegu xayra musaafihin bañ a doon ñoo xam ne nii dañuy dugg ci ak njaaloo fama stamtaatum bihi minhunna bépp koo xam ne ca soxna yooyu bànneexu ngeen ca ñoom fa aatuhunna ujurahunna farida na ngeen leen jox seen can ya muy seen pay ya di can ya farida mu nekk farata wala junaha alaykum fi ma taradaytum bihi min baadi alfarida dara nekkul nag ci lu ngeen di gërëmante seen diggante gannaaw farata ba inna allaha kaana aliman hakima yàlla day mooy aji ko xere aji xam lépp aji ko xere ñaka jàll waala mbokk suñu boroom gannaaw li it lay wax wal muhsanat min an nisa mbokk muhsanat day firi ci arab ñetti mbir suñu boroom bañ mu lënt looloo tax ñetti yépp mu dajale ko ci benn page bi muhsanat bi ngay jëkk a gis moom mooy ñi nga xam ne dañoo am jëkkër jigéen ñi am jëkkër dañ leen di tuddee muhsanaat gannaaw ñaari muhsanaat bi mooy gor yi ci borom bi de wax naan man lam yastati minkum tawlan an yankiha al muhsanaat foofu moom muhsanaat mu ngi fay firi jigéeni gor amma boo demee muhsanaat boobu nga xool ñetteelu liñ ba ca gannaaw bi muy wax naan wa aatuhunna ujuruhunna bil ma'ruf muhsanat ghayra musafihat muhsanat bi day firi fegu ci bañ a njaaloo kon muhsanat day firi borom jëkkër muhsanat day firi gor muhsanat day firi bañ a njaaloo naka lañ koy firi mooy position ba mu nekk ca aaya ba moo lay wan lan lay firi kon muhsanat min an-nisa mooy lan bépp jigéen boo xam ne mi ngi ci buumu sëy buumu sëy googu nag mooy mooy lan jëkkër ji dafa tukki bàyyi na ko fi dix ans sëy bi tasagul mi ngi ci buumu sëy islam it jàngal ñu ni même bu tas bi amee dagganul ñu koy takk ci iddi bi jeexul même bu tas bi amee dagganul ñu koy takk ci iddi bi jeexul kon ñooñu araamal nañ ko ci yéen képp ku nekk ci buumu sëy ak képp ko tas te iddaam jeexul na doon idda boobu idda dee la moom kat jëkkëram dee na mu war a toog quatre mois dix jours araam na góor yow nga dem takk ko avant quatre mois dix jours yi mat jëkkëram da koo fase mu war a toog ñetti règle wala ñetti weer araam na nga dem di ko takk ci idda boobu jeexul loolu la ñu wax ci mohsanaat mine nisa xanaa nag lu dul la nga xam ne seeni loxo moo ko moom illa ma malakat aymaanukum te mooy tey suñu demoon di jihaad fi sabilillah julit ñi jàpp ay jaami yéeféer yu jigéen jaam yooyu am nañu ay jëkkër waaye lislaam daneen dagan na ngeen sëy ak ñoom loolu mooy jaam yu bees yooyee ngeen jàpp paa jaam yi nga xame ni ni say jaam yi démb la woon te loolu daan ci ñëwaat ci kanam kon jaam yooyu même bu ñu amee jëkkër yow dagan na nga sëy ak ñoom maadaama ay yéeféer lañ yoo jàppee ca toolu jihaad ba amma nag gannaaw ba am na yeneen acte yoo xam ne ñëw na ci suñu borom yàlla subhanahu wa taala di ko wax ci wàllu googee borom bi ne mu ne lii la yàlla farataal muy téere bi yàlla bi daganal nañ ci yéen gannaaw lii lépp daganal nañ ci yéen gannaaw lii lépp mbokko alquran wala diine kenn du ko jëfandikoo ci benn aaya wala benn xadis te loolu surtout ndaw ñi bàyyi ci xel bu baax ab aaya wala ab xadis kenn du ci jële atte atte ak ëmb lay doon mooy la wér ci sunna wér ci alquran loolu la ñuy boole doog caa génne atte loolu tax lii aaya bi rek bu dee dañ ci sukkandiku dañuy jàpp ne kon beneen jigéen bu dul bii rek dagan na waaye islam woon ñu ñeenti jigéen ñoo xam ne aaya bu tudd leen ca araam nañu sëy ak ñoom loole mas naa leen fi nettali benn débat bu amoon ci benn rajo ci rajo yi am benn ñuy wax naan ndax masalan boole nit ki takk nit ki takk tantam dagan naam daganul ñu cay wax ci li ñu tegul ci benn xam-xam benn monsieur Labbe dugg ci biir émission bi naan eh loolu dara newu ci alxuraan lii la wax nee na leneen lu ci loolu gannaaw na leneen lu dul loolu dagan na eh waay monsieur Labbe ko nekkoon nga yem sa église rek baa ñëw suñu diine maadaama yow gëmoo suñu alxuraan kay bu ñu bu ñu ko waxal waaye mbokk sunna moo ñuy jàngal yonent bi alayhi salaam mu ne araaman ñuy dajale mooy diggante jigéen wa xaalataha wa ammataha la nga xam ne moom mooy boole jigéen ak tantaam jigéen booy sëy ak moom mboolem ko bokkoog yaayam ndey wala baay araam na nga takk ko tànk fase woo xale bi wala xale bi de mboolem ko bokkoog baayam ndey wala baay araam na nga takk ko lu dul nga fase ko wala mu wala mu faatu muy ñaar bokk na it lu ñu sunna di jàngal mooy yeneen bi alayhi salatu wasalaam mu ne yaxramu min rada ma yaxramu min an nasab lépp loo xam ne nii ak mbokk da koy araamal nampal da koy araamal ca mooy ka nga xamee ni ni mooy soxna bi nampal xale bi xale boobee day araam ci moom la nga xam ne ni moom mooy tantay tantay ka ko nampal ak bàjjanu ko ko nampal lii mooy kon la nga xam ne islam da ko wax gannaaw lii nag yàlla mën a daganal naa lépp loolu it muy won yaatu l'islam mooy li li araam lu ñuy lim la amma li dagan moom yàlla boyal na ko mu nekk lu bari bari bari bari ci yeneen façon jigéen comme niñ koy waxe woon ci njëlbeen sëy loolu da ci am solo trop bokk na it loo xamee ne nii lu jara bàyyi xel la te waxoon nañ ko si dar si dimanche yi passé rek mbokk yàlla mu ne daganal naa gannaaw lii waaye nag nañu xam ne tamit bokk na lu borom xam-xam yi di wax yàlla dana daganal naa ko waaye yàlla waxul faratal naa ko kon bépp sëy boo xamee ne nii buñ ko defee mu tasum mbokk nga la waay bu ko kenn def am déet te mooy sa sa sa mag sa doomu mag wala sa doomu rak fase soxnaam nga dem takk ko dagan na am daganul dagan na mais ndax loolu res na koo def ci société bu mel ne société Sénégal bi ma xam boo boo ko defee du yàq nga mbokk ga mi ngi noonu sa magu bàyyi sa rakku bàyyi fa sa soxnaam nga dem takk ko ndax ndax ndax dagan na dagan na ah kay ki nga bokkal ndey ak bàyyi dem fa sa soxnaam nga dem takk ko ndax dagan na dagan na ah kay waaye nag lépp loo xamee ni nii ab sëy la buñ ko defee mu yàqu mbokk kenn du sakku lu dagan di ko jënde loo xam ne day yàqu mbokk loolee kon di mbir boo xam ne dañ cee war a bàyyi xel loolu ñu ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne kon daganal naa gannaaw loolu an tabtahu bi amwalikum mooy ngeen dem di sakku ay sëy ci seen alal te mbokk it ab sëy dañ koo war a sakku mooy dulit da ngay xam ne da nga war a góorgóorlu sakku soxna loo ca man it da ngay gis ne day gën a baax rek ba baa nga yegg ñeent bañ a paase ñeent tabatagu boobu it jigéen dafa war a sakku sëy mi ngi noonu donte ne miinuñu ko ci ay société yu bëri waaye da ngay gis ne dara nekkul ci jigéen gis koo xam ne da ko yaakaar mu propose ko boppam xaw nga mën a wax ne sëy bi gën a barkeel bu am ci kaw suuf mooy sëyu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ak xadija yonent yàlla muhammad fukki xelam ak juróom-ñeent xalaatul woon dem di proposer xadija pour pour mu nekk soxnaam xadija moom moo ko gis doyloo ko proposer ko boppam loolu it da ngay gis ne masalan ku mel ni omar ibnul xataab keroog bi xafsa borom këram ba faatu dem na ci abubakar na ko waaw xafsa mi ndax doo ñëw nga jël ko abubakar tontu wu ko mu dem to usmaan wax ko tontu wu ko ba muy xaw a am lu ko naqari ci loolu waaye gannaaw ba dañuy gis yonente bi alei salaam ñoo takk ko loolee kon tabatahu ngeen sàkk boobee wali yi soxna si mën naa dem xool ku mu yaakaar mu proposé ko doomam wala jarbaatam wala ilaxiri soxna si mën na gis ku mu yaakaar mu proposé ko boppam loolu yëpp da ngay gis ne islaam nekkul lu dul rafetlu ko an tabatahu bu dee nag góor ñaa bi am waali ko mbokk jigéen boo koy takk da nga ciy def alal alal boobee da ngay gis ni mooy valeur boo xam ne mën na nekk xaalis liquide mën na nekk matériel tool la oto la lu mën a doon ci matériel yi comme mën na nekk effort booy def mën na nekk effort booy def yeneen yàlla Muusa alayhi salaam bañ koy may soxna effort la def yu loon alal day da doon dafa sàmm loolu lañ ko mayee alal loolu borom bi tuddee la amwaalikum nag lenn ci fuqaha yi rawatina malike yi ñoom dañoo gis ne islam danaan nit ki bu sàccee bala ñoo dagg loxoom day sàcc rubu u dinar ñu ne kon almaal bi tax ñu naan maal tax ñu dagg loxo muy rubu u dinar kon li borom bi ne amwaalikum booy takk soxna war koo jox maal fokk mu mat rubu u dinar loolu nag mbokk ijtihaadu ulama ul malikiyye la waaye bu ñu delloo ci sunna nag da ngay gis ne yonente bi alayhi salaam musul tënk can fu muy yem can daal mi ngi nekk ci la borom bi subhanahu wa taala wax li yunfiq zu saatin min saati wa man qudira alayhi rizquhu fal yunfiq ma ataahu llah ki am lu yaatu na na joxe lu yaatu joxe nga un million man nga loolu mais ki nga xam ne moom kat tey ji bëgg na soxna te fii mu ne moom lan la yor quinze mille francs quinze mille francs yooyee même buñ jàppee rubu au dinar mat ne trente mille teewul mën nañ ko ca may soxna ndax yeneen bi may na soxna ci lu yées loolu kon ngeen sàkku ci seen alal sàkk goo xam ne li ngeen di jublu ci soxna ya mooy muhsinin xayra musafihin mbokk muhsinin mooy doon ñoo xam ne da ngeen di jublu di fekk la nga xam ne nii mooy soxna ya ba du ñu dem ci njaaloo fegit yéen seen payu bopp ba du ngeen dem ci njaaloo moom la yonent bi alayhi salaam doon wax naan yéen ndaw ñi ku ci mën a takk ne dem takki soxna loolu moo gën a nekk di gën a sajj ay bëtam wa ahsanu lil farj mooy gën a fekk la nga xam ne mooy sa pay ba nga dem ci njaaloo bañ a doon musaafixiin koo xam ne da ngay dem rek di tuur sa mën yu ci caaxaan muy la nga xam ne mu ak yàq doonte ne ne mbokk loolee musaafixiin yooyu mooy njaaloo gu bon gi ñëpp xam nañ ko am na nag góor ñoo xam ne njaaloo gi dañ koy làqutoo ci ay sëy mooy fu ñu gis jigéen mu yéem leen rek ñu ñëw naa ñun day bëgg ñu dañu bëgg ñu caaxaan dañu bëggoon rek ñu may ñi farataak sunna ñu may la farataak sunna nga def un mois deux mois football ko dem seeti keneen loolu la yonent bi tudde azawaqin ña nga xam ne dañuy takk jigéen takkuñu ko ngir sëy ak moom fekk fekk seen bopp waaye ngir xam la moo doo rek buñ ko xisee ba xam jeex na pare nañ ci moom mbokk loolu ci bàkkaar yi gën a garaaw la bokk borom bi subhanahu wa taala nag ne bépp jigéen boo xam ne may nañ la ko ba nga bànneexu ci moom na ngeen leen jox seen can muy farata te na am mbokk jigéen boo ko xisee ba takk may nañ la ko yow nga digoon ko can can googee bis bi ngeen àndee ci lal farata la ñu jox ko ko même boo dee woon bala ñoo miraas lañ ko koy jox amma bu dee jotu leen ànd ci lal nga daal di koy fase su boobaa dañuy gis ni dañu naan genn wàllu can gi moom mooy la nga xam ne nii moom moo war ci moom bu doon tene nag tuddaloo ko benn can suñu borom mu ne fa matti uuhunna seet leen lu ngeen leen di xéewale ngeen jox leen ko borom bi subhanahu wa taala mu ne can gi farata la nga xam ne soxna si moom moo ko moom gannaaw bañ tuddee farata nag dara nekkul ci bi ñuy gërëmante suñu diggante yow kat bi ngay ñëw dañ ne la cent mille francs mooy can gi nga joxe cent mille francs ba pare la nga jël may nijaay may bàjjen may nangam may nangam loolee lislaam da koo gërëm ca loolu it mbokk ab sëy noonu la mooy nga fexe ba booy dugg ci sëy bi ku nekk am kuulite ci yow am banneex ci yow ca lu mel noonu la yonent yàlla Muusa diggante woon ak ka nga xamee ni nii mooy ka ko mayoon soxna mooy can gi juróom-ñetti at la soo ko mottalee fukk nag loolee sa ngëneel la mi ngi noonu Muusa ne ko kon loolu dara newut ci lu ma ci def kenn du ma yedd mu ne ko kenn du la yedd ca loolu it mbokk góor bu ñëwee ñu laaj ko can mu joxe can ba pare téye loxoom kenn du ko yedd bu joxee nag ñu gërëm ko suñ taam mi ngi doon boo joxee boo doolee dara ñu gërëm la waaye boo jooyee ci can kenn du la yedd fala mi ngi doon junaha aleykum borom bi subhanahu wa taala nag ne fii ma taradaytum bihi day wone ne jëkkër ji mën naa yokk canam soxna si mën na ko may ci can gi waa ji ñëw na jox na la cinq cent mille nga yëkkati cent mille francs yi delloo ko ko su yokkee cent mille francs yi delloo ko ko ma soñ ma tey nettali benn histoire bu bu yéeme benn ci ay jeunes yi ñëw fii ci jàkka ji benn xaritam dafa dem takk benn soxna baay bi na ko ah waa da ngay seet loo am rek nga indi nee na mu yëkkati huit cent mille ñoo jox ko yu ko joxee huit cent mille ñu def mariage bi ba mariage bi pare xale bi dem sëy ci suba go mu ñëw indi six cent mille ne ko kat mariage bi deux cent mille lañ ci def six cent mille yi dolli leen dëgërloo ko yaa ngi dogg dugg ci sëy dëgërloo ko suñ taam kooku doo ko fonk waay ah loolu mbokk mi ngi noonu fii ma taradaytum bihi xam ngeen kooku mbokk julit soxna si bu xëyoon di ko wong ak saaga ak yëpp bu xelam demee ci teraanga bi ko sëñ taam defal ah da ngay kii waaye koo xam ne ba nga ñëwee di di takk soxna dañ lay limal limal ba say rongoñ di tuuru boo ñëwee soxna si bu dee cere ji saful laalu rek nga mi ngi noonu ala kulli xaal borom bi subhanahu wa taala kon loolu la wax mu ne fi ma taradaytum bihim badi farida borom bi nag jàll wa ala mu ne inna allaha kaana aliman xakima yàlla mooy ki xam yàlla mooy ki xereñe mi ngi noonu cheikh ousmane
ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم جزاكم الله خيرا سني بروم جل وعلا كن مني ومن لم يستطع منكم koo xam ne mënul ci yéen tawlan ci ak woomle an yankixal muhsanatil muminat ci mu daa di takk ca gor ya nga xam ne dañoo gëm fa mimma malakat aymanukum na bokk na doon takk kon te ña nga xam ne moom na ko seeni ndeyjoor yi min fatayaatikumul muminat ci seen jaam yi jigéen yi nga xam ne dañoo gëm wallahu a'lamu bi imanikum donte ne yàlla moo gën a xam seen ngëm ba'dukum min ba'd yéen gor ñi jaam yi ci yéen lañ jóge yéen jaam yi gor yi ci yéen lañ jóge fankihuhunna bi izni ahlihinna na ngeen leen takk ci ndigalu seen ña leen njaboote wa aatuhunna ujurahunna te ngeen jox leen seeni can bil ma'ruf ci njekk muhsanaat ñu doon jigéen ñoo xam ne ñu fegu lañu غير مسافحات baña doon ay njaalookat wala mutaxisaati axdaan bañ a jël ñoo xam ne dañuy jàpp ay coro mooy lii xale yi min ci ay gel fa isa uxsinna suñu demee nag bañu fekk leen ci ab sëy fa in atayna bi fahisha bu ñu wëlbatikoo indi ñaawteefu njaaloo fa alayhinna nisfu ma ala almuxsanaati min al azab dana nekk kon ca seen kaw genn wàllu la nga xam ne dañ ko waroon a teg gor ga nga xam ne nii dafa njaaloo woon genn wàllu mbugalam lañ koy teg zalika liman xashiya al anata minkum lii nag dana ñeel yéen góor ñi ci képp koo xam ne ragal na tabbi ci ak jeng ak njaaloo ci yéen wa an tasbiru ngeen muñoon bañ a takk jaam yi day xayrun lakum moo gën ñeel leen wallahu ghafurur rahim xam leen ne yàlla kuy jéggalaate da koy yërëmaate la yuridu llahu li yubayina lakum yàlla daa bëgg ci leeral leen wa yahdiyakum sunana allazina min qablikum daa di leen di jubal ca yoonu ña nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon wa yatuuba alaykum daa di leen di jéggal wallahu wallahu alimun hakim sa borom yàlla aji xam la aji xereñale mi ngi noonu mbokk suñu borom day indi benn kaafi mooy ki nga xam ne amul alal jum mën a takkee gor suñu borom mu ne dem leen takk ca seen jaam ya nga xam ne yéena ko moom muy jaami julit donte ne mbokk problème mu jaam boobu dañu xam ne islam la nga xam ne moom la ci reconnaître mooy jaam boo xam ne day nekk jaamu shar'i mooy jaamu sharia lan mooy jaamu sharia mooy ay jullit day nekk nañu di woo ay yéeféer ci l'islam ñu bañ ñu ñaan leen ñu contrôle dëkk bi ñu bañ ñu xeexeeg ñoom ci diini ñañ ca jàpp ñooñu mooy ay jaam amma bari na lu ñuy tuddee ay jaam ci adduna bi loolee ak ëpp doole rek la sun maam yi luñ daan def nga koy dégg ca waykat yu jëkk ya mooy dim bi metti na dañ daan tëdd ba guddi jot buur tëggum dëndëm na jóg leen fii ko fi fanaan dib jaam attaque ay dëkk rek ramas yépp jàpp ne ay jaam lañu ay ñu jóge ci yeneen dëkk ñëw ci penc bi ramas xale yépp jàpp ne ay jaam lañu mbokk loolu ak tooñ la mais pas jaam jaam mi ngi jóge ci la nga xam ne moom mooy jihaatu sharia borom boobu subhanahu wa taala nañ ne jaam yooyee nga xam ne dañ leen ne jàppee ñu ñëw doon ñoo xam ne ñu gëm lañu ku munta takk góor na takk ca jaam yooyee heure boo demee di takk ca jaam yooyee tamit na ngi leen takk ci ndigalu ña leen moom ahlihinna bokkul ak seeni baay mën na bàyyi mi ngi fi mais jaam ki ko moom mooy kilifaam loolu it dalay won ni jigéen kenn du ko takk lu dul ci ndigalu kilifaam imma mu nekk gor ay waliyoom ay kilifaam ñoo am droit maye ko jaam ñaka moom ñoo am droit maye ko jox leen leen seen can ba ñoom ñu xam ne dañoo dugg ci ab sëy njaaloo wuñu ba ñu xam ne yet nekkuñu di jël la nga xam ne nii mooy affaire de concubinage boo xam ne tey boo demee Occident du am problème muy lu yéeme Occident tey boo demoon tey di takk ñaareelu jabar loolu déli la fa déli bu rëy nga dem takk ñaareelu jabar gars yi lu ñu def da ngay boo nekkee sam ñaareel bu police ñëwee da nga naan kii sama coro la mi ngi noonu sama sama sama coro la bu la neexee am fan weeru coro yoonu kenn nekku ci waaye dem tur dem boole ñaari jabar dañ naan yow da ngaa da ngaa violé da ngaa def déli mi ngi noonu ala kulli xaal suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ngeen dem takk jaam yooyee mu ne nag jaam yi bu ñu demee ba fekk leen ba ñuy xam ne léegi dugg nañ ci ab sëy bu ñu njaaloo waatee nañ leen teg génn wàllu mbugal bi ñuy teg gor mbokk gor ñaari mbugal lañ koy teg imma musula sëy dañ koy duma téeméeri yar bu ma sëy sëy ñu rey ko ak rey ndax mënees na koo xaaj la wallahi kon genn wàllu mbugal mooy lan dañ ko waroon a dóor téeméeri yar dañ ko dóor juróom fukki yar jaam bu bu dee ne dafa sëy njaaloo dañ koy dóor juróom fukki yar su dee mus sa sëy sharia prévoirul loi bu mu koy teg waaye yonent bi alayhi salaam dane kenn ci yéen bu amee jaam mu sëy na ko na ko duma lu waral loolu mbokk jaam yi nit ñi dañ leen a suufantaloon ñàkkal leen fayda ba nga xamee ni jafe woon na ci ñoom ko mën a mucc ci njaaloo loolee ñu bàyyi ci xel bu baax am naa sama benn mbokk masali ñu ngi may nettali benn ci dëkk buñ ko affecté woon fii ci Sénégal xale yu góor yi foofu xale yu jigéen kuñ dajal rek yóbbu ñu wax ah ñii suñuy jaam lañu mbokk loolu ñaari erreur nekk na ci mooy jaam yooyu ñu naan suñuy jaam lañu du question lu ñu wax jaamu sharia te ñaareel bi tamit même jaamu sharia ki ko moom am na droit ànd ak moom waaye moom dong nga am droit ànd ak moom bu ko kenn xisee di ànd ak moom ay nit du ñu bokk benn jaam ku ku bëgg rek ñëw ci moom loolu ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee kon suñu borom yàlla subhanahu wa taala nag ne su ngeen munoon day bañ a takk jaam bi moo gën ci yéen lu waral loolu mbokk mooy boo takkee jaam doom ya ngay am ak moom ñëpp ay jaam la ñuy doon kon ngeen muñoon bañ koo def moo ko gën waaye nag boo ragalee tàbbi ci njaaloo ah su boobaa nga takk jaam bi mooy gën allahuma lu dul mbokk suñu borom nee na ngeen muñoon bañ a takk jaam moo gën jumhurul ulama dañ ni nga takk jaam bu gëm yàlla moo gën nga takk chrétien jigéen boo xam ne nii gor la ca ca ca gëmul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñu bàyyi ci xel bu baax loolu muy wane suñu doom yi nekk occident ngalla waaye nañu xam ne dagan na nga takk ab juif bu gëm yàlla gëm isa gëm gëm Moussa dagan na nga takk chrétien bu gëm yàlla gëm isa dagan na nga takk ko de mais c'est pas recommandé suñu borom yàlla mu ne wa an tasbiru xayrun lakum ngeen muñoon bañ koo def moo gën lu waral loolu mbokk mooy sa njaboot dañu nekk ci danger heure boo sëyeeg ab chrétien yàlla dogal masalan nga dee fekk xale yi majeure guñu moom dong mu des ak ñoom boo moytul ñëpp ay chrétien la leen di def kon dagan na waaye c'est pas recommandé borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne ngeen muñoon bañ koy def mooy la gën yàlla nag mi ngi jéggal di yërëmaate képp koo xam ne def na ko borom bi mu ne yoon waa ngi noonu bëgg naa leen a teg ci yoon wa nga xam ne mooy ña baax jiitu woon fa la ñu jaaroon te mbokk diine yépp ci yàlla la jógee yoon wu jub la yàlla tegoon yahud yi ñoom ñoo dem ba mujj ñu soppi ko yoon bu jub la yàlla tegoon nasaraan yi la ëpp ci ñoom ñoo dem mu ñu ñu safi ko yoon boobu rek laa leen teg ngir bëgg ngeen texe ci àdduna ak àllaaxira gannaaw ba it bëgg leen a jéggal la nga xam ne seen bakkaar yàlla nag mooy ki xam mooy ki xereñe lépp lum tëral noonu la lépp lum dogal noonu la yàlla na yàlla dëpp la ñoo ngërëmam àdduna ak àllaaxira yàlla na yàlla laabal ñu laabal suñuy sëy wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ok alhamdulillah xam na bokk na rek ci lu ñuy yëgle mooy inconnu yooyu nga xam ne jàpp na léegi nekkatul inconnu ci nit ñi waaw mooy ñooñu di faatu ci hôpital yi ca xamuñu seen borom yàlla dafa dogal am 23 corps yu ñu war a jële fële dalal jàmm dimanche bii di ñëw su ko defee jàmbaar yi nga xam ne ñoom ñooy dem di taxawee loolu moom xam nañu incha allah teel faa dem ñi bëgg a dabu yoolu jullee geeg suul gi it bu ñu demee onze heures fële nga xam ne mooy armée lu yoof incha allah daañ fekke loolu bokk na it suñu benn mbokk di Abdul Qadir Mbakke mi nekk ca Thiès yàlla dogaloon na dëkk ba mu nekkoon ñu xatal ko fa te it bokk na xat mooy xatu sunna daara ji mu yor ci Thiès it dafay dajale xale yi tari guñ fay def donte ne mu ne am na benn waqf bu nekk foofu ci mbaar moo xam ne dañ ko fay def ngir xale yi lu ci waay mën a jàppale it jàppale ko ca loolee ak jaamu yàlla la loolu la ñuy wax xam na lañ cay jeexal rek mooy li ñuy def àllarba bu ñuy jël benn yoon ci weer wi di barkeelu ci jàkka ji it bu ñu paree lu ci waay am mu jox ko mbokk yaa ngi ci biti mbokk ne it ci ñoo xam ne ni dañuy jàpp ne mën nañ koy yónnee it buñ jëlee 77 814 42 20 1000 francs yooyu ñuy barkeeloo par mois mën na caa jaar barakallahu fiikum kon incha allah xam naa guddi nañu jël bu dee ñaar wala ñetti laaj su dee am na rek bisimilah na am waaw bisimilah waaw waala kulli xaal yow mi jaay alquran te client yaa ngi dem ak ñëw client yooyu bu ñëwee da ngay wax ak ñoom ba nga xamee ne comme yàlla may nañu yi ñuy dégloo alquran yépp arrêté ko lu yomb la yow daal tant que yaa ngi nekk sa place man ngaa nekk déglu sa alquran heure bu client ñëwee di wax ak yow nga arrêté bu client bi demee nga saalal sa alquran mi ngi noonu yàlla na yàlla yaram Aboubacar Jabir al-Jazairi mu ne moom bi muy doog a ñëw Madina nee na amul benn bitik booy dugg ci Madina lu dul commerçant ba ma nga yor ab kaamilam su client ñëwee mu tëj ko wax ak moom su génne mu ubbiwaat ab kaamilam loolee kon la ñuy wax ci kaamil ba ñuy wax ci portable bi ngay teg alquran wala cassette bi tant que dal yaa ngi si nekk pour bañ a perdre sa temps man ngay déglu téere bi yàlla bi di ci def tadabbur di ko xalaat mais bu client ñëwee di wax ak yow nga arrêté ko moo gën alquran ji di wax yow ngay wax ak client bi wallahu subhanahu wa taala aalam naam waaw kon xalaas mbokk kon incha allah xam naa kon ñu doy loo lool rek yal na yàlla defal ñu tawfiq fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain